asalaamaaleykum mbokk yi tey la dibéer ñaar fukki fan ak benn ci Shaaban muy weeru baraxlu di juróom-ñetteelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñetti fan ci weeru mars ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent ñaar fukki fan ak benn dafa bokk ci li muy fàtte yi kon tey ci dibéer ji rafetul ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci jàngoro siti ak ndof ak ngaana ak mboolem jàngoro yu bon yi allahuma inni audu bika min albarasi waljunooni waljudaami wa min sayi al asqaam allahuma inni audu bika min albarasi waljunooni waljudaami wa min sayi al asqaam xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama yépp ay def njuumte ñi gën ci way juum yi ñooy tuubkat yi xadis bi at-Tirmidi nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullu bani aadama xataa'u wa xayrul xataa'iina at-tawwaabuun rawaahu tirmidi waxtu julli yi suba waxtoom dana tàbbi six heures huit juróom benn waxtu yu tegal juróom-ñetti simili tisbaar treize heures quarante six benn waxtu tegal ñeent fukki simili ak juróom benn takkusaan seize heures quarante six ñeenti waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom benn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 juróom-ñaari waxtu yu teg a fukki simili ak ñett yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin